salaamaaleykum man la Jimé CDB, actuel euh, présent association des jeunes pour la promotion de l'AN AJPH association bi nga xamante bañ en juillet 97 ba 2017 20 ans tey ñu ngi dans cimetière Nous avons continué suñu PTA le cimetière Nous depuis ce matin on est là Nettoyer nous. def nañ li ñu nous quoi. Euh, pour nettoiement bi ni ñu koy organiser mooy que ni comme âge dañ ko structuré ah commission bu nekk dafa am koo xamante ni mooy président commission bi président commission environnement début mandat bi tak automatiquement dañ toog bañ toogee kenn ku nekk génnee sa plan de travail moom tamit sur ce moo bokkoon si nettoyer almeri yi bokkoon na si programme am nettoyer quartier bi bokkoon na si programme am nettoyer marché bi bokkoon na ci programme am xam nga def tamit ay euh, poubelle au niveau différents poto lamp yi nekk si quartier bi tamit bokkoon na si programme benn bu nekk nag saa yu ñëwee dañ koy def mais tey jii nii mois de décembre bi dañu ñu programme woon pour nettoyer almere yi moo taxit jours yi ba mu ñëwee ñëw nañ nettoyé ko. annonce bi tamit comme ni ñu ko doon defee chaque année ah, mooy que ni dañ doon dem si jumaa ji wax bilaal bi mu jàllale ko foofu noonu bu ñuy julli àjjuma mu jàllale ko après ñu dem si jàkka ji sanc ñoom tamit <coughs> différents prières yi ñu jàllale ko mais bii nii moom yeneen euh, set setal yi moo gën gën a bëri nit quoi amaana na message moo jàll kon nu mu war a jàllee amaana tamit dëj bu nga xamante ne am na ci biir dëkk bi quoi loolu tamit moo handicapé nit ñi pour ñu bañ a ñëw sur nettoyage mais am na ñu ñëw masse bi waroon na gën a bari nii mais tamit li ñëw ñu ñëw tamit alhamdulilah quoi ñu ñëw ñëw na ñu nañu na ñu def nañ li ñu mën daal. à propos maire bi léegi léegi léegi maa ngi si doon waxante euh, comment dirais-je euh, Mamadou Diène président conseil quartier.

avec le temps dañ ko corriger quoi yooyu noonu ay erreur la nga xamante ni si ñun lay jugee ñun ñoo waroon dem toog former benn commission toog waxtaan ak mairie bi parce que li mu wax mooy que ni am na ay techniciens de surface ni ñu ngi mairie ba loolu mooy noonu boo ñëwoon indi leen fii ñu accompagner la set setal nañ ko certes ak suñu doole la gisoo amuñu gant max yi nii dafa manqué ñi am na ñi amuñu xam nga instant ñi ngi waroon protéger wu normal te yaakaaroon na nit ñi préalable yooyu noonu bu ñu ko defoon dem mairie ba toog ñu waxtaan affaire yooyu noonu dinañ ñu mën a accompagner en matériel ainsi de suite affaire quoi te remercier mouvement bi nga actuellement ni. buret yi nga utiliser commencé ba ainsi de suite affaire yoy non quoi di remercier si geste ba pour mais au quoi comme esprit de bénévolat

di remercier ñëpp di wax nag ne ñun ñëpp dañu war a ñëw jàppoo xam nga genre acte bu amee ñu jël ay affaire d'association wala ay affaire de nit ñu teg ko ne à côté quoi ñu xam ni li ñuy def ni ñun ñëpp benn moment nii suñu quartier jëm ca kanam rek moo si taxaw dugg quoi.